ñëw yéen murit yéen nuy si leen bég te sant Sëriñ Tuuba te dellu ndamu murit yéen jóg leen si yaare ñi waare mi sargali leen alaaji Seex Anta yor nay mboot yu rëy yu lamu maraba yaa sayxu anta yow de mbaate jàmm nga am malaaj la waa seegu ak ñey korote ak ñey xërëmu maraba yaa sayxu anta mbaate jàmm nga am malaaj la waa seegu ak ñey korote ak ñey xërëmu borom daaru salaame ku ko sopp mel ni nu màggal maam Seex Anta magi Seex Musa caytu bàyyi Seex Musa cayto bàyyi Seex Moodu Maamun borom daaru ay massa massa Mbàkke balla cay nga daj ak yan bu rëy kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bu ñu amaatee mbégte teew ci jataay bi nga xam ne moo di euh, ñaareelu màggal gu sëriñ Abo Mohamed euh, xalifatu Cheikh Mahamadul Mamoun euh, jiite tey jii nag mu mel ne la woon démb dellusiwaat na mu di ne xam ngeen ne màggalu Daaru Salaam njàngum kaamil mi Cheikh Abdoul Khadir Mbacke moo ko daan ubbi tey jii nag taawo xalifaam bu baax bi di sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te dolli ak wéram. ñëw nag fas yéene dundalaat nag jéego yoo nga xam ne moom na Cheikh Abdoul Khadir daan euh, doxe euh, sëriñ Abo nag ànd bokk yépp nag yabal fi doomam di di di taawam di jëwriñam di sëriñ Cheikh Anta Mbacke xalifa Cheikh Mahamadou Roqee ngir mu jébbal teraanga yi sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke mu Cheikh Abdoul Khadir. noo ngi jéggalu bu baax di yëkkati kàddu ci sa kanam waaye ndigal li bàyyi ko ci suñu abu muhammad rek moo tax muy wax ne sa dikk gi daaru tey xàmmewu ko ak dikk gi fi Cheikh Ahmadou Bamba ñëwoon ca 1903 ba mu bàyyi ko ci nattu bi bernde ko maam Cheikh Anta doon berndeel bu ko mënoon weesu dana ko weesu te maam Cheikh ba léegi itam ba fi Cheikh Ahmad Bamba ñëwee jóge ci nattu wi ah sëriñ Modou Mamoun noonu la ko daan defe ak sëriñ Cheikh Abdoul Qadir imaamu imaamu murit yëpp ginnaaw sëriñ Modou Mamoun itam Serigne Modou Rokhaya noonu la ko daan defee. ak sunu imaam nun ñëpp mu Cheikh Abdoul Khadir nee na tey jii taxaw nga fi taxawaayu sëriñ Touba taxaw fi taxawaayu Serigne Abdoul Khadir xàmmewut taxawaay yi ba tax na bernde yi nu mu demee rek xeeb na ko li muy ñaan daal mooy sunu borom may la fan wu gudd moom itam sunu borom bàyyi ko fi mu. mën a ànd ak njaboot gi ñu di la berndeel ndax sëriñ Abdou Khadir kenn werante wut ne day dafa doonoon cërub Daaru Salaam séddoo Daaru Salaam waa Daaru itam séddoo ko te am na ci firnde yu bari yoo xam ne maanaam làmmiñ mënu koo tudd waaye gone yu ndaw yi sax xam nañ ko sëriñ daal nee na mbég mu maam si xam te bégoon keroog ba ko Sëriñ Tuubaa yendul see mbég na mbég mu ko bi fi Sëriñ Abdou Khadir daan ñëw mbég mu ma saam mbégum tayam mi moo ko ëpp ndax xam na ne yowee Sëriñ Abdou Khadir tey jii muy Sëriñ Modou Mamoun loolu nag suñ borom ci xaralaam ga moom rek moo ko mën ba jëfe ko noonu ngay Sëriñ Abdou Khadir moom muy si Modou Mamoun di si Abdou Khadir eh, nga ñëw fekk fii eh, xam naa loolu dafa ma koy jéggal nga ñëw fekk fii eh, sab jaam fekk fii sab taalibe kon nag nga ñaanal wale mbokki taalibe yi te xam na lu ñu def rek xeeb nañ ko mbàkke ñaan nga yàgg fi lool ak njaboot gi nu yàgg la ko defal barki Sëriñ Tuubaa nuyoo bu baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ Cheikh yow mi nga xam ni yaa nu doon jottali kàddu yi sëriñ Abo nu xam ne sunu dikk gii danoo dikk dikkaleel dikkaaleel njabootuk sëñ Abdou Khadir xam naa sëñ Siidi moom noonu naa ko yaay yaay borom gaawaan kon kenn mënut a dem Daaru Salaam bàyyi la fi mm. waaye yàlla daa def boobu ma nga uh, Ndakaaru man it maa ngi woon ci tool yi déggante bi yombutoon waaye bëgguñu ko woon a gàllankoor nag dama ko waxoon rek bu fekkee yitte yi mat na kon nga ñëw bu ñuy njëkk ak sëñ Abdul Ahad mi nga xam ne moom itam noo ànd ñëw teewal fi njaboot gépp suñ ko mënoon dañuy àndandoo ñun ñëpp dikk waaye yitte yi bari na bu amee ku ne fii rek ka nekkal ko fee sëñ bu Boussa Mokhtar ak sëñ Jili Lappe it maa leen waxoon noo daje fi ndax ñoom it bu sëriñ bi masaan di ñëw ñoom la daan àndal sëñ muxtaar boobu moo fi nekk waaye kon nag suñ dikk gi dafa làmboo mbir yu bari waaye xanaa rek ñu tënk ci yet mooy barkeelu si ci bisub sëriñ Touba ak sëriñ Gaawaan loolu moom murit bu ne sañ na ko bu ne it bëgg na ko kenn kenn kenn bëggu cee génn ñëpp ci bëgg dugg loola ndax bis boobu sëñ Gaawaan doon mbégee mbégum ñëpp la woon waaye moo amoon tawféex yi nag sëriñ bi wàcc ci moom te loolam mooy li ñuy njabootam di xeeñtu ba tey jii kon dikki fi barkeelu si ci bis boobu andi nañu fi waaye jokk bokk indi nañu fi dundal kóllëre indi nañu fi yooyu yëpp boo ko xoolee da dugg na ci waxi sëñ seex ji ba tax na nag kon du jar guddal waaye yooyu bu fekkee ne làmboo na ko noonu li nu jàpp mooy dinu fi berndeel ci lenn sax jëru ko woon noonu noo waroon a fab ay yëf di ko fi indi ngir ñu mën a jot ci barke boobu yi ni ngeen koy e, wuute e, dafa mel na nun noonu nag waroon nañoo dikk jàppale leen ci loolu waaye ñii ñu fi defal lenn wax dëgg yàlla xam naa ne rek e, seenu baax aku mate ak tam di dundal loolee nga xam ne mooy cosaan la duñ def lu dul ñaan yàlla loolu yàgg ci seeni loxo ñii fi nekk yàlla nañ ko yàgg fekke yàgg ko dundal ñiy woote di woote ñi ñuy woo di wuy si ci jàmm teyit yàlla jagleel nu jëfal nu lépp mu tàbbi ci bis bu njëkk boobee ak yi ci toppaat yëpp te lépp di yu baax waaw kon nag moom gannaaw xalaf bi euh, salaf bi bu baax la woon yàlla na nekk xalaf bu baax bu dëppook ñooña mm-hmm. waaye mel na ñoom kenn mënu ko ndax seenu jagle bokk na ci li ñu rawee ci jagle mooy seen jamono mm-hmm. noonu danoo nekk ci jamono ju doy waar waaye lun jéem a ku su néew rek mm-hmm. ñu barkeeloo ci wallazina amanu wa tabaatuhum zurriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim mm-hmm. zurriyatihim ilxaq boobu moom yàlla warlu na ko képp ku jéem ba àgg fa nga mën a yem kon nag yàlla na ko ci defal jërë ngeen jëf wasalaam